boobu ba tey yàgg na APIX si ñëwoon fi recensé ñu ne ñu ginnaaw si tey bu fi kenn tabaxati ku fi bëgg a toxu tamit na nga toog ba ñu lijjanti mbir mi boobu ba tey nag ñu toog fi ñu toog ñun ñi nag ñu bari si ñun ñi ngi loué ñeneen ñi lépp ay xaalis au niveau si banque yi ba tey ñu ngi koy fay loolu yëpp ngir bëgg ñëw dëkk si ak seen njaboot waaye ñun APIX lu mu ñu teg metti na daf ñu sat toroxal mën nañu wax loolu bind nañ ñaari yoon président la république mais ba tey kenn tontuwuñu léegi nag ñun impacte yëpp ñun ñoo ne bëggatuñu terre bi di jaar si waxu taan parce que APIX pare wul pour jox ñu suñu ndàmpaay ñun ñëpp aussi ñi ngi réew ñu tey ji si waxu ñuy xool ban bés lañuy jàpp pour ñi commencé woon seen seen seen i tabax ñu dem eggali ko ñeneen ñi nga xam ne dañu bëggoon toxu si ñu toxu si seen kër benn yoon à partir yi tamit bëggatuñu benn ndaw APIX ñëw ci Sébikotane di fi tracé wala di fi gas APIX nag benn woy la am mooy ñun daal ñu ci phase du recensement te yaakaar naa ni Sénégal ku doon recenser population bi soxlawul sa nga ci def juróom-benn weer léegi léegi nag collectif Sébikotane yi ñoom ñëpp ñu ñoo ci ànd bind ko wasalaam.